réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu lañu ñu toll. coow li nga xamante nii nag moo lëmbi fan yële Sénégal nekkoon coow loo xamante ni coow koppoor la boo xamante ni dañ doon dafa jóge fële si Qatar dugg fii ci Sénégal ñu ne dañ see financé ab benn waay boo xamante ni politicien la te waay boobee du kenn ku dul ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko mbir moomee nag na xam ne. am na lu si yees lu si yees nag ku ko yeesal du kenn ku dul ki nga xamante ni moo di journaliste bi di pap Alé Niang ndax nag moom moomee di Pape Alé nag dafa bind ab lettre ki nga xamante ni ñoo di émiré euh, Qatar yónnee ko fële sa Doha moom moomee nag di leen yëgal ne ñun daal dañu soxla ab leeral boo xamante ni daal boo am solo la ndax nag daal dañ fee jot benn xibaar boo xamante ni ñi ko fësal nag kenn ki maanaam ab député la si assemblée nationale waaye ñaar ñi nag ab journaliste lañu ñoom ñooñee nee nañu daal dafa am benn waaye politicien boo xamante ni mu ngi Sénégal fii di wuyoo si turu Ousmane Sonko moom moomee dafa jot benn financement boo xamante ni toll na si ñaar fukki millions de dollars. te ñaar fukki millions de dollars yooyu noonu jógewul fenn fu fi nga xamante ni moo di Qatar moo tax peuple Sénégal bi nag yónnee na lettre bi maanaam di sàkku ab leeral. di sàkk ab leerlu ndax nag loolee lu am la wala déet ndax nag suñu réew mii nag di senegal maanaam luwaay dafa am nuñ ko tëddee rawat na sax lu jëm si wàllum politique ndax genre financement yu mel noone nag maanaam àndul ak benn yoon ak démocratie rawat na sax maanaam muy dox si diggante réew ak réew bataaxal boobee nag na ngeen xam ne Pape Alé mu ngi ko posté fi nga xamante ni moo di si page Facebook am